Quand je dis nous, ça veut dire les leaders, mais aussi le peuple. Le peuple subit de graves injustices par rapport à tout ce qu'on lui prive. Au peuple, une bonne santé. On prive au peuple une bonne éducation de qualité. Si vous allez chez moi, à l'intérieur du pays, on prive au peuple une alimentation suffisante d'énergie, une alimentation suffisante en eau potable, eh bien, ce peuple aujourd'hui est en train de résister sous toutes les formes. Et parmi cette résistance, une nouvelle trouvaille de notre ami Ousmane Sonko. Ousmane, je voudrais sincèrement te féliciter. Je pense que ce conseil de casserole est simplement un référendum. C'est un référendum parce que la majorité des Sénégalais était sortie hier et toutes toutes les composantes de la société. C'est-à-dire tout ce qui ne pouvait pas venir à nos marches, tous ceux qui ne pouvaient pas venir à nos meetings ont manifesté à leur manière hier. Et à l'unanimité, je dois dire, ñaar rek moo à ñi nga xam ni seen qualité de vie sen jang joxolen ko sen qualité de vie sen taxawaay joxolen ko sen qualité de vie liñu jariñ réew mi ko ñoñu rek ño nek ci jamm waaye démb concert de casserole bi kep ko xamné amna am nga lu la comme nim leen ko demandé won rek won nga lila la yamuñu ci concert de casserole mais dañ ko booleeg ay discours dañ ko booleeg ay discours mu ñor leen torop nak ndax li nga xamné motax mu gën leen ñor moy ku nekk daf naan sénégalais bu respecte heure mais bi 20h jotté Pil ñepp ñoo àndandoo pil xana liñ doon xalaat kay moy mom 10 minutes la leen waxoon ni leen nañ ko def 10 minutes gaay ñen ñi dem nañ ba minuit kenn ku nekk da nga tollok fu sa nakar toll fu sa raala bol toll fu sa mar toll ci rew mi ak ak régime bi ñi joytu nañ dox mi ñi joytu nañ courant bi ni joytu nañ jàng joytu nañ éducation et je trouve que c'est une bonne alternative pacifique pas devant la, devant la répression sanglante de ce régime di rey di xaañ di dóor di gaañ hôpitaux yaa ngi des di des nag di jàpp te jàpp boobu léegi amatul xaj Yes, sir.